thème bu am solo incha allah balaa ñu ciy ñëw rafet na comme ci faqara bu njëkk bi jotuñu woon présenté mbooloo mi ak seeni liggéey seeni activité kon dañu tàmbalee tomb boobu balaa ñuy ñëwaat ci taabal bi waaye ñu xam ne incha allah détail bi yëpp bu soobee yàlla ba dinañ ko yëkkati ci 6 heures et demie bu jotee bu mu yàgg yàgg 6 heures et demie ñu yëkkati ko kon tomb bi ñuy tàmbali léegi ñuy jox Oustaz Abou Jamil mu def benn présentation bu gàtt ci Daaru Sunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziare di leen ñaanal jàmm képp koo xamante ni yaa ngi fi ak koo xamante ni yaa ngi dégg suñu kàddu groupe Daaru Sunna groupe WhatsApp la en même temps am na groupe Telegram am na compte YouTube am na compte Facebook groupe Daaru Sunna ki ko créé man naa ko créé ci ginnaaw bi nga xamante ni benn mbokk bu jigéen soxna jéeni bi ma ko proposé ma créé ko léegi am na ñaari at ak lu topp yàlla dogal ñu créé groupe bi di dox nit ñi di bëgg a dugg si groupe bi ñu créé waat yeneen i groupe ba mu mat huit groupe am na ci ñaar yoo xamante ni question réponse la oustaz Mouhamed Alamine Diop moom moo ko dirigé di fa tontu ay laaj ci mbokk yi seen i question groupe Daaru Sunna am na lu tolloo ñaari Facebook benn page Facebook ak Facebook am am na ñeenti compte YouTube comme ni ñu ko waxee woon Daaru Sunna TV ak Këru Sunna ak Daaru Sunna School ak Daaru Sunna Dars ay durus moom moo fay jàll. bu ñu ñëwee ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo séq liggéey bi ginnaaw man ak Soxna Jéeni ak Abu Ibrahim Abu Daawud ak. abu ibrahim ak ibrahim ak Lamine Dia abu mariam ñun ñoo séq liggéey bi waaye ñu ngi ci ànd ak yeneen mbokk yu baax ak asatis yu wuute ku mel ni docteur Mourtada Gaye mi ngi foofu ku mel ni oustaz Alpha Ba mi ngi foofu ku mel ni oustaz Fadel Ndiaye mi ngi foofu ku mel ni docteur Iliman Ndiaye mi ngi foofu ku mel ni oustaz Omar Diallo mi ngi foofu ak yeneen yeneen yi ata asatis xam naa ñu bañ a guddal ndax waxtu bi dem na loolu moom moo nekk groupe Daaru Sunna di sàkk mbokk yi nag ñu ñëw jàpp ci liggéey bi ak képp koo xamante ne bëgg ngaa dugg ci groupe yi affiche yi ay numéro mi ngi ci mën ngaa contacter mbokk yi su ko defee ñu dugal la ci groupe yooyu noonu bu feesee ñu tijjiwaat yeneen groupe ngir jàng ak jàngalante moom moo ñu fa dajale. barakallahu fiikum xam naa ñu ngi gërëm Cheikhana ak oustaz Omar Diallo ak oustaz Omar Sall ak mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo fi teew yëpp ak ñi nga xamante ni. ñoom ñoo sabab jotaay bi am joxe seen ñaq ba nga xamante ni jotaay bii nii taxawal nañ ko yàlla na ko yàlla def seen misaanu xasanaat barakallahu fiikum
jazakallahu xayran li ma ko waxee léegi waxtaan bi ñu war a waxtaane lu am solo la ndax moom mooy métier yonent yi alayhim asalaatu wassalaam kon thème bi niñ ko tëggee mooy ad daawatu ila allah woote jëmale ci borom bi subhaanahu wa taala xaqiqatuha moom mooy lan woote jëmale ci yàlla moom mooy lan wa maqaasiduha lan mooy ay jubluwaayam wa fadluha ay ngeneelam wa wasaailuha ak mooy méthode yi nga xamante ne moom la ñuy daawa kon dañuy ñaan mbokk yi ñu déglu bu baax a baax ndax jotaay yu mel ni moom dañ ko war a baril daawa ñun ñëpp ci lañ nekk yenn saa ñu tàbbi ci ay yoo xam ne ay njuumte la cheikh bi dinañ wax daawa dëgg-dëgg moom mooy lan ndax dañ koy dañ ci demee di tëñëx tëñëx ak suñuy xel nu ñu neexee ñu defee ko wala boog dafa am loo xam ne moom moo ñu tënk ñu war cee jaar incha allah loolu lépp bismillahi tabaraka wa taala cheikh bi dina ci dina ci ñëw insha allah bu fekkee ay laaj it ñu bind ko ci ay feuille ñu yéene ko fii insha allah bu waxtaan bi jeexee ñu àddu ko cheikh bi kon fal yatafaddal mashkuran majuura
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala jataay bi mu boole ko ci jataay yi mu gërëm di sant mbokk yi nga xam ne ñoo dox ngir amal ko ak ñi nga xam ne ñoo ko wuy si ni ko Cheikh Omar waxe kon lu ma jaaraat ci xolu waxtaan wi ndax dégg nañ ko kon rek suñ dee gàttal dañuy wax ne kàddu yi dafa war a tontu ñeenti laaj yooyu mu junj mooy xaqiqatu daawa mooy lan maanaam daawa mooy lan ak itam ay jubluwaayam objectif am mooy lan ak lan gëneel la am ak lan mooy ay jumtuwaayam yi nga xam ne moom lañu war a ji am ak lan mooy ay jumtuwaayam yi nga xam ne moom lañu war a jëfandikoo ci wàllu woote ak ak teg jumtuwaay yooyu tomb bu njëkk bi rek woote ci lislaam mooy woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak woote bi ay saxaabaam loolu mooy woote ci lislaam dëgg-dëggam nag day làmboo ñetti ponk bu ci jëkk mooy tawxiidul mursil wéetal ki nga xam ne moo yónni yonent buñ mas a yónni wéetal ko ci ak moomeelam ak i jëfam sunu borom tabaraka wa taala lim moom bokk ko kenn lim moom lan la lépp moomam lépp ku ci yor dara dala koo dégg waaye nit ak moomeel la moom ci boppam ci sunu borom tabaraka wa taala moom la moom kon nga nangul ko ne moom moom yi moom moom lépp ay jëfam yi mu jëf te jagoo ko it nga nangul ko ne moom rekk moo ko jagoo yooyu bokk na ci wërsëg moo ko yor ku ñu wërsëgal moo la wërsëgal kuy dund sax moo la dundal ku am xéewal fii ci àdduna moo la ko jox kuy génn àdduna it moo la génne àdduna kon jëfi sunu borom tabaraka wa taala labal na doomu aadama ci léppam nga nangu jëf yim jëf ne moo ko jëf te keneen defu ko nag loolu mooy tomb bu njëkk bi ci wéetal aji yónni gi yonent yi muy sunu borom tabaraka wa taala wéetal ko it ci ay turam ak i melokaanam ne bokkaliwu ko ak kenn sunu borom tabaraka wa taala bokkaliwul ak kenn wala lenn ay melokaan melokaan yim mel te xamal na ko ci alquran xamal na ko ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom dong moo mel noona jëpp doomu aadama juñ bëgg a jox melokaan wu mel noona wala jinne wala malaaka jàppal ne loola ci biir mbokkaale ci lay dugg sun borom nam mel moom dong nga na mel la ca des nag mooy wéetal ko ci jëf yi ak ci jubluwaay yi afaalul mukallafina wa maqaasiduhum seeni jëf ak seeni jubluwaay li ngay def na doon loo xam ne yàlla la ko sant ginnaaw ak jaamu yàlla la ba nga koy defit na yàlla dong tax kon loolu mooy wéetal borom bi tabaraka wa taala ñaareelu ponk bi ci biir woote mooy tawxiidul mursal fil mutaabaa wéetal ki nga xam ne moom la yàlla yónni nag ci nun mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wéetal ko ci lan ci topp ko def ay ndigalam bàyyi ay tereem ak di ko roy ci nam doon jaamoo yàlla kon ki wéetal ki yàlla yónni woon kooku du nangu biddaa ci diineem du nangu biddaa ci diineem lépp lu saxul ci alquran saxul ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkul ci biir chariatul islaam loola du ko jëfe du jël xalaatu doomu aadama it di ko dunde ci diineem lu dul xalaati doomu aadama joojee dafa dëppoo ak njàngaleem alxuraan ak sunna lépp lu wuteeg moom rek daf koy sànni moo xam dañu ko tudde ab ngir wala dañ koo tudde ab tariqa wala dañ koo tudde fikr islaami moo xam tur wuñ ko mën a jox ci tur yi su ñëwee dañ koy jël xool ko segg ko ba xam fan la tollu alxuraan ak sunna su fekkee dëppoo nag moom loola lu ñu war a jëfe la du caagi ni diw a ko wax moo tax ñu war koo jëfe waaye diw da koo wax mu dëppook alxuraan ak sunna loolu moo tax mu war koo jëfe yooyu su àndee muy wéetal ko ci topp ko alayhi salaatu wasalaam kooku day daal di doon ñaareelu ponk bi ponk ba ca des mooy jikko woo jikkoy as-salafu saalih ponk boobu mooy boo xam ne mënta ñàkk ci daawal islaam yi ngir ay ponkam mën a daje bi pas-pas bi wéree mucc nga ci bokkaale bi topp gi nga topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wéree mucc nga ci biddaa mu des nag ñetteel bi muy defar jikko yi nag sa diggante ak bindeef yi ndax kat sa diine lu ci aju ci sa pas-pas mu jàpp ci tawxiid mucc ci bokkaale ak lu aju ci sa diine mu jàpp ci sunna te muslu bi daa sori ko loolu sa diggante ak sa boroom la nit ñi amuñu ci wàll moo tax nit ka na muy jaamoo yàlla ak pas-pas ba mu yor yoonu nit nekku ca li ca des nag nga xam ne mooy wàllu nit ñi ci sa diine loolu mooy sa jikko ndax ci lay feeñ ci sa jëflante di feeñ ci say wax di feeñ ci say jëf di feeñ ci say doxin jikko jooju yi nag nit ki du tëb rekk mu defar waaye dañ koy defar moo tax kii woote dana ñëw di woote ci tawxiid di ñëw di woote ci sunna ndax nit ñi mucc ci bokkaale ak biddaa waaye day ñëw itam di woote ci defar jikko yi ndax nit ñi seeni jikko rafet kon yetti ponk yooyu yi mënuñoo ñàkk bu fekkee nag xaqiiqa daawa dëgg-dëgg lañ bëgg mooy kii dafa ñëw ngir soppi li nit ñi doon dund am fu mu leen jële bëgg leen faa yóbbu ci ay jëfam ak i waxam noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defe woon dikk fekk benn réalité ci benn société boo xam ne dafa am lu ñuy dund yàlla yónni ko mu ñëw ci seen biir fas yéene doon boo xam ne day soppi loolee daa ñëw fekk leen ñi doon jaamu ko ci xiram kon tawxiid moom amu fa mu ñëw fekk leen seeni jikkoo yéen jikkoo dara baaxu ci dañuy naan sàngara di def lu bon seen digganteeg jëflanteeg nit ñi dara baaxu ci ku jekku nit man koo rey rey ko ku ëpp doole nit bund xataaw ko jël alalam léeg-léeg sax nga jëlum njabootam ngir ëpp ko doole melokaan woowu la fekkoon ab société mel ni yàlla yónni ko fa da ko dama laa yónni fii ngir nga nekk ak leer goo xam ne da ngay génn nit ñi ci lool yi ñu nekk dugal leen ci leneen kon da ngay wax ne woote dëgg-dëgg mooy soppi benn réalité boo xam ne ab société daf ko doon dund nga di ko soppi ci jëf ak ci wax lu tax ngir sharia ci boppam toog palaasu lépp loo xam ne bokkul ak sharia noonu la ko borom bi tabaraka wa taala waxee huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin dafa yónni ab yonent boo xam ne ci aw nit la ko yónni ñoo xam ne jànguñu binduñu muy kenn ci ñoom waaye mu ñëw di leen jàngal alquran di leen yar di leen defar di leen jàngal itam sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ne ci ak réer gu métte métti ci la leen fekk kon su fekkee ne teewlu nañ ñetti tomb yooyu yi muy tawxiid ba ak sunna sa ak jikko yu rafet ya dañuy daal di xam ponki daawa suñ xamee dëgg-dëgg ja mooy ngir soppi la nit ña doon dund te baaxut bëgg leen a yóbbu bañ dund loo xam ne dafay dëppoo ak chariatul islaam ñaareelu tomb bi nag muy maqasid daawa al islaamiya jubluwaay yi wala objectif yi nga xam ne moom la daawa am boo ko xoolee dafa am ay objectif yu sori wala benn bu sori am nag yeneen yu nekk ci diggante bi yoo xam ne yooyu suñ amee rek bu sori ba dafay am bu sori boobee mooy taxqiqu masaalix al ibaad wa daril mafasidi anhum lépp loo xam ne dafa baax ci nit ñi fi l aajili wal aajil muy tey ak ëllëg maanaam fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira lépp lu baax ci nit ñi da koy xëcc di leen ko andil lépp lu bon ci ñoom mu di leen ko dàqal kon kooku mooy jubluwaay bi nga xam ne moom mooy jubluwaay ba rek fa muy jaanoo ji mooy nit ña teere ji àjjana rek muy jubluwaay ba moo tax ibnu taymiya rahimahullahu taala day wax ne inna shariata al islamiyata jaat بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها لأن الشريعة دفا نيو غير أمل لب لو خمنا لو باخ لا تي نيت ني لو فا نيكولون مو اندي كو لو تي مانكي وانيت مو موتال كو واي دفا نيو ييتام غير جيلي فا لا فا نيكون تي اي نياو تيف لو تي خمنا ييت لو تي bari la ba jéggi dayo it mu néewal ko ba dootu bari loolu mooy bu fekkee ne da nga koo jël rek ijmaalan da nga koo def jël ko noonu rek ci global waaye bu fekkee da nga koy détaillé nag tomb ba ci jiitu ci objectif yi daawa mooy ixraaju nnaasi min azulumaati ila nuur nga génne nit ñi ñu jóge ci ak lëndam ñëw ci ak leer lëndamuk lan lëndamuk kéefar yóbbu leen ci leeruk lislaam lëndamuk bidaa yóbbu leen ci leeruk sunna lëndamuk ay mooy yàlla yóbbu leen ci leeruk topp yàlla kon yett yooyu yi ñooy lëndam yi benn gu ci nekk ak leer moo jàkkaarloog moom lëndamuk kéefër ak lëndamuk biddaa ak lëndamuk mooy yàlla genn gu ci nekk am nag leer gu jàkkaarloog moom kéefër ga lislaama jàkkaarloog moom biddaa ba sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jàkkaarloo ak moom mooy yàlla ye ñëw topp yàlla te teg ko ci alxuraan ak sunna mu dëppoo ak moom ñaareelu objectif ba mooy tabliigu risalati l islaami kaamilan kama araadaha rabu samawati wal ard jottali lislaam mu nekk diine ju mat sëkk bañ a bàyyi dara ni ko sunu borom tabaraka wa taala bëgge kon woote bi li ko tax a jóg mooy fu lislaam àggul woon na fa àgg fu sunna àggul woon na fa àgg fu xam-xam àggul woon na fa àgg ñetteel ba mooy aar diine ji aar diine ji ba kenn du ko foyee ndax foyeekati diine yi bari na soppikati diine yi bari na aar ko nag ba ab soppikat du ko soppi ab yàqkat du ko yàq ab lëndëmalkat du ko mën a lëndëmal loolu ci biir daawa bi ci la bokk moo tax fu ab ak lëndëm nekk rek war nañoo taal ab jum ca wet ga mu leer ba ñu xam ne lii luñ doon lëndëmal la waaye du loola ñeenteel ba mooy indi nag ak dal ishaa'atu al amni wa salaami wal istiqraar indi ak dal stabilité ak sécurité ci aw askan ba nit ñi mën a am jàmm mën a dund seen diine mën a dem liggéeyali seen àdduna loolu yi dafa bokk ci li tax wooteb lislaam jóg ndax yooyu kat su amut dana dem ba nit ña waxuma tala liggéeyal tax a jaamu yàlla sax duñ ko talati waaye liggéeyal seen àdduna sax bootu duñ ko talati loolu moo tax bokk na ci jubluwaayu daawa bi mooy mu amal jàmm ci diggante bindeef yi daawa bi nag fa muy jotee njobbaxtalam dëgg dëgg dëgg mu àgg fa nga xam ne foofa la ko solo sa tollu mooy mu boole ñaari pàq benn bi mooy xamle lislaam dëgg dëgg mooy lan beneen bi mooy yeesalaat diine lislaam xamle gi buñ ko waxee mi ngi jëm ci ñi ñuy tudde ummatu daawa ñi nga xam ne nekkuñu ci biir lislaam nga xam ne li leen ci tee nekk mooy ñàkk koo xam kon waru gar lay doon ci wootekat bi ka nekk ca bitti ñëkkal ci biir diine lislaam te am ay ñaaw njort ak ay ñàkk xam ak ay réere yu mel noonu nga xam ne moo tax mu nekk ca gannaaw ñu fexe ba mu xam ko su ko defee kooku mooy ak taarif bil islaam beneen pàq bi ci des dafay jëm ci yeesal yeesal nag buñ koy wax ci biir diine ji moo tax ndax léeg-léeg diine day dem ba mu yàgg mu ràpp ni dara di yeese ñi di ko xool muy yees di yees ba mu yàgg mu tàmbali di màggat diine noonu lay def ci xoli doomu aadama yi noonu lay def itam ci biir société yi léeg-léeg ab société société day tane ci diine ba mu yàgg ñu gis yu bon ya di fa dugg njaxas ya di fa dugg biddaa ya di dugg ba mu yàgg day dem ba sunna sax day tumuranke ku koy dund dañu jàpp ne kii moom daa indi lu bees su boobaa nag diine aajana yeesalaat mooy la fa nekk ñu jàpp ne diine la ñu xamal leen la ca doon diine ak la ca doonul diine su ko defee loolu mooy doon yeesalaat goo xam ne bu dikkee dana làmboo defaraat pas-pas ya waaye dana làmboo defaraat jàpp gañ war a jàpp ci sunna làmboo itam defar jikko ya yeesal ci diine nag ñaari jumtuwaay la am maanaam dafa am ñaari barab yoo xam ne fenn fu ci ne dana tax wala ñaari mbir yoo xam ne lenn lu ci ne dana tax yeesal diine dal di jaadu mooy su demee barab ci niñ ko waxee léegi su boobaa jaadu nañu tasaare ko ci biir nit ñi xamal leen mooy lan buñ nee diine nag sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci jiitu ndax yeesal moom ci biir société bi lay doon ci biir jullit yi lay doon jullit yi dem nañ ba sunna tumuranke na ci seen biir kon xamal leen sunna dana tegu ci njàngale muy wax di tegu itam ci jëf muy jëfe ko ci seen kanam ñu di ko gis loola dana tax ñu xam ko beneen ba ca des mooy fu biddaa yëkkatee béjjéen ñu gor ko dindi ko leeral ba ñu xam ne loolu biddaa la fexe ba yee bindeef yi ak askan wi ba lépp lu bokkul ci lislaam ñu xam ne lii bokku ca su ko defee ñi mën koo raxas ba mu set wecc ci lépp lu ci bokkul ba njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp rek dong des fi su ko defee loola ak beesal lay doon ci biir diine lislaam am na ngëneelul daawa nag ci ñetteelu tomb bi ku ko doon lim doy na waxtaan ngëneel yi nga xam ne woote ci yàlla am na ko doy na waxtaan ba ci njëkk mooy borom bi tabaraka wa taala nee na wa man axsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saalixan wa qaala innani min almuslimin nee na amul kenn kenn koo xam ne moo gën a rafet ay wax ki taxaw di woote jëme ci yàlla wootewut jëme ci askanam wootewul jëme ci boppam wootewul jëme ci baayam wootewul jëme ci am ngir wala mbooloo wala tariqa daa ila llahi day woote jëme ci yàlla rek kooku nee na kenn gënu koo rafet day wax boole ko nag ak di jëf jëf ju baax laay ji daf lay won ne woote wax la ak jëf kon wax la ak jëf ndax wa man axsanu qawlan la wax kenn gën ta rafet ay wax mimman daa ila llahi waaye yëmut foofu mu ne waa amila saalihan boole ko mu jëf nag jëf ju baax kon woote dana doon wax waaye dana woon itam jëf maanaam nit ki mën nay jëf te waxul jëf ja jariñ ci woote bi loo xam ne kenn xamul lu mu toll kenn xamul lu mu toll nit mën nay wax wax ju baax def jëf ju safaanu rek tabax lam tabaxoon lépp mu koy yàqu kon wax ak jëf ñoom ñaar ñooy ànd daawa bi moo mën a jëm kanam waaye su fekkee ne ñoom ñaar ànduñu rek yàq dana dana judd ndax la muy def bu bokkut ak la muy wax rek loola noppi woon mooy doon gën ci moom kon loolu day wane ngëneel li nga xam ne woote ci yàlla am na ko ñaareel ba mooy li ñu junj léegi muy woote moo doon méccam yonent yàlla yi ñi yàlla tànn ci bindeef yi nga xam ne ñoom ñooy ñe ca gën mu tànn leen tànn boppam yónni leen ci bindeef yi ngir ñu jottali seen diine ñooña seenub liggéey bépp moo doon woote ci yàlla kon ki jóg soobu yoonu woote jëme ci diine yàlla ji kooku daa jaar ci yoonu yonent ya kooka nag lam nekk kon jëf mënu ko gën a baax ñetteel ba moo de wootikat yi ñi digle lu baax di tere lu bon borom bi tabaraka wa taala nee na ñooy ñi gën ci xeet wi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuuna billah nee na yéen yéenay xeet wi gën ci xeet yi saxaaba yi la doon waxal waaye képp ku leen royit da ngay dugg ci seen biir nee na leen yéen yéen a gën ci wépp xeet woo xam ne mas naa génn bokk ci doomu aadama yi lu tax ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkar nee na da ngeen di digle lu baax di tere lu bon daawa nag mooy digle lu baax ak tere lu bon kon nee na ñooña ñooy ñi gën ci nit ñi boole ko nag ak seenu gëm yàlla ñeenteel ba moo di ñii woote jëme ci diini sunu borom tabaraka wa taala yàlla dig na leen ak texe ci àdduna ak ca àllaaxira nee na wal takun minkum ummatun yad'uuna ila alxayri wa ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna anil munkari wa ulaika humul muflixuun nee na kuréel bi jóg ci yéen di woote ci lu baax di digle lu baax di tere lu bon nee na ñooña ñooy ñi texe ñooy ñi texe kon texe googu yi dana làmboo àdduna ak àllaaxira juróomeel ba moo di ñiy woote jëme ci diine sunu borom tabaraka wa taala ci yërmande sunu borom tabaraka wa taala kenn gënu leen caa yey ndax seenu cër da caa yaatu lool borom bi nee na wal muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baad yamuruuna bilmaarufi wa yanhawna an ilmunkari wa yuqimuuna alsalata wa yutuuna alzakata wa yutiicuuna allaha wa rasulahu ulaika sa yarxamuhum allah inna allaha azizun xakim nee na way gëm yàlla yu góor yi ak yu jigéen yi nee na ñooñu ñenn ñu ci nekk péetéem ña ca des lañ maanaam ñu bennoo lañ ñu ci nekk péetéem ña ca des la baaduhum awliyaau baad loolu mooy wane ne ñi gëm yàlla te seen gëm yàlla wér ñuy ay góor wala ñuy ay jigéen ak bennoo moo leen di fësal maanaam du ñu tàqali ko waaye yemul foofa dañuy digle lu baax di tere lu bon di julli ca nam jaadoo suñ amee alal di ko joxe ca nam jaadoo ci zakkaat asaka boole koog di topp yàlla ko yonentam nee na nag ulaika sa yarhamuhumullah nee na ñooñu yàlla dana leen yërëm kon loola lu màgg la yàlla nu yàlla boole ca loola inna allaha azizun hakim moo tax ba ca tegu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp ku woote jëme ci njub man daa ila hudan képp ku woote jëme ci ak njub nee na yàlla dana la bindal ab yool ak yoolu képp koo xam ne jëfe na njub googee te kat luñ bari bari loola du wàññi dara ci seenub yool ñoom kon nag lu rëy ko ki nga woo ci njub mu ñëw jëfe ko dem woo keneen mu jëfe ko yow am nga ab yool ci woote bi nga woote waaye moom woote ba mu woote yow it amaat nga ci ab yool te du wàññi nag ci yoolam dara na kooka dem woo woyiwaat keneen mu duggati kooka am na yoolam ka ca tegu amub yoolam yow mi tàmbaloon yëf yi nga am sab yool soo ko doon misaal tey da ngay wax ne yow mii di jiima góorgóorlu tey bay taxawal jataay bu mel nii mbooloo mi daje fi di wax ne yàlla nee na akub yonentam nit ku fi gindikoo wala ñoom ña koy def bu fekkee ñu gindiku lañ xamal ne yool ba ñuy am yoolub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da cay génn lu tax mooy moo woote jëme ci njub ga keneen jëfe ko woote ca keneen jëfe ko woote ca keneen di ko jëfe di ko woote ba mu agsi ci yow tey kon ñi ci diggante bi ñépp dañuy jël seen wàll ci lu baax lii ngay def ndam ak mbaax ci woote yi ñu xam ngir gindi menn mbindeef ngir gindi mbindeef moo gën àdduna ak li ci biiram yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fa wallahi la an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min xumuri naam wa fi riwaaya xayrun laka mimma talaat alayhi shamsu wa garabat nee na képp koo xam ne yàlla gindi na nit ci sa loxo gindi yàllaa ko yor maanaam yoroo ko yow da ngay jot li waaye képp koo xam ne yàlla gindi na nit ci sa sabab yow nee na danañ la fay loo xam ne moo gën àdduna ak li ci biiram moo gën àdduna biiram kon nag woote jëme ci lu baax mi ngi noonu bu kenn wax na dafa rëy wala dafa jafe wala faaw ma jàng xam-xam bi ba jeexal ko door a mën a woote déedéet kenn ku nekk mën nga jot li dara yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne balligu anni walaw aaya donte jenn aaya joo xam ne da nga koo jàng mokkal ko jàngalaat keneen texte bi mu mokkal ko loolu ci biir daaw la dugg nga xam lu muy firi jottali ko nit firil ko ko moom laay jooji dong loolu ci biir daaw la dugg nga toog ba mu yàgg am loo xam ne déggoon nga boroom xam-xam bi ne nàngam day daganut nga gis ku ko def nga ñëw laay ko biir ne ko nàngam kat baaxul bu ko defati jàmm laa la yéene yaa ngi ci biir daaw bi ak fu sa xam-xam mën a toll kenn ku ne xam nga lu baax ak lu baaxut wala xam nga ca dara boobu kenn ku ne am na loo xam ci lu baax ndax kat borom bi tabaraka wa taala dafa am lu ñuy tudde fitra muy bindiin woo xam ne da koo bind nit ñi ñu di ci xàmmee lu baax ak lu baaxut ñu di ci xàmmee lu baax ak lu baaxut su loolu amee nag ba noppi nga wëlbatiku mu yónni ab yonent mu ñëw muy jàngale lu baax ak lu baaxut yooyu yépp suñu àndee nit ñi li ëpp ci ñoom buñ gisee lu baaxul danañ xam ne baaxut buñ gisee lu baax xam ne lu baaxut kon su nit defee ci sa kanam loo xam ne xam nga ne lii du noona bul ca noppi xoolal wan yoon nga war a mën a suubu moo xam wax lay doon moo xam mbind lay doon moo xam noo koy defee ba mu xam ne lii yow jot li nga ko ne ko baaxut su ko defee sa jaan daal di wàcc ca loola loolu lépp ci biir daaw bi ci lay dugg tomb bi ci des nag te am solo lool mooy lu aju ci wàllu wasaa'ilu daawa jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ war a jëfandikoo ngir woote li tax ñu war koo bàyyi xel lool ci waxtaan wu mel nii mooy jamono ji ñu toll dafa nekk jamonoy wasaa'ilu daawa maanaam moyen yi nga xam ne doomu aadama yi mën nañ ko jëfandikoo ci woote jataay bii ngeen amal rek firnde la ci ndax yi ngeen filim yépp ci ay jumtuwaay yu ñuy jëfandikoo yoo xam ne ay nit mën nañ caa taatane la waroom xam-xam yi di jot li jumtuwaay yu yëpp ay jumtuwaay yu bees la yoo xam ne yu amul woon ci jamono la amoon nay jamono kuy woote ngir sa woote àgg fi bërëb rek ngay mën a toog wax ak nit ñoo xam ne bu dee ci jumaa te daanaka moo doon ndaje ma gën a rëy soo xasee xutba ña teewee jumaa joojee ñoom dégg nañ booba xutba bu jeexee fu mu yem fa la yem léeg-léeg mën ngaa bind ab téere bala nga caa noppi sonn ca lool ay at yu yàgg ñi muul ko tasaare ko ab lim bu yam amaana mën naa génn réew ma nga nekk amaana mën naa bañ a génn waaye du àgg fenn fa tey nag nit mën naa toog di wax million ci ay doomu aadama balaa mat ab semaine ñu déglu lim doon wax kon nag jumtuwaay yi àgg na foo xam ne léegi tey jéggi na dayo ci woote bu ñu waxee nag jumtuwaayu jumtuwaayu woote muy wasaailu daawa mooy bépp sabab boo xam ne nit ki mën na koo jëfandikoo ngir jot li woote bi lislaam moo xam sabab boobu yi daa doon ay wax wala daa doon ay jëf wala mu doon sax jot liwukaayu wax ak jëf lañ cay xool rekk mooy su fekkee ci sabab yi am la na dëppoog li nga xam ne sharia da koo daganal loolu rekk lañ ciy xool boroom xam-xam yi danañ faral di gëstu gëstu yoo xam ne di ca werante werante yu yaatu ci ndax wasaa'ilu daawa tawqiifiya la walla ndax déedéet ndax dafa doon loo xam ne rek kenn sañu cee dolli dara ndax soo ci dollee dara day dugg ci biddaa wala sañes na cee dolli dara loolee am na ay borom xam-xam yoo xam ne am nañ ci ay taxawaay waaye la wér rek moo di bépp jumtuwaay boo xam ne sharia terewu ko wala aw wootiin woo xam ne sharia waxul ne nii bu ni kenn wootee su boobaa loola dara du ca nekk lay cosaan nag ci jumtuwaayu daawa yi ak asaalib yi mooy li borom bi tabaraka wa taala wax ne udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawidati al xasana wa jaadilhum billati hiya ahsan wooteel jëme ci sa yoonu boroom defe ko xikma xikma nag mooy lenn lu ne nga teg ko palaasam mën naa yaatu lool lenn lu ne nga teg ko palaasam boole ko ak waaraate te boo dee dialogue wala ngay waxante nga jëfandikoo anam goo xam ne gu rafet la wajaadilhum billati hiya ahsan moo tax ci biir mujaadala te day faral di am lool ci suñ jamono mooy loo xam ne day dem ba jéggi sax waxante waaye day mujj dugg ci werante léeg-léeg mu dem ba dugg sax ci xulóon ak faf su boobaa na nga bàyyi xel ne quraan yar ak sunna soo làmmiñ lu ñaaw du ci mas a jóge muy jëfit lu ñaaw du ci jóge ku waxanteeg yow wax wax ju ñaaw mooy dem ba jëmmi jamono mu del siwaat xoolaat boppam rëccu ndax ba mu waxee wax ju ñaaw jo wala mu jëf ko réaction ba mu doon séentu far gis safaan ba loolu ab yar bu metti la ci moom boo xam ne bu tëddee du mën a nelaw bu yàggee borom bi tabaraka wa taala mën na koo gindee ca loola moo tax xikma xel la ci biir daawa jumtuwaayu daawa nag ñetti xaaj la ci loolu ma doon junj léegi ci taxawaayu boroom xam-xam yi am na benn xaaj boo xam ne sharia moom moo tegtale ne dagan na te it dagan mooy cosaan ci jumtuwaay yi lay cosaan ci jumtuwaay yi mooy dagan kii woote jaarale ko ci bind wala muy woote jaarale ko ci xutba wala mu jaarale ko ci conférence wala mu jaarale ko ci réseaux sociaux moo xam nu mu ko jëfandikoo loola la cay cosaan mooy lu dagan la waaye am na benn xaaj boo xam ne sharia ci boppam tegtal ne lii moom daganut am na ñoo xam ne seenu woote ak xër guñ xër ci woote tax nañu dem ba àgg ci di jëfandikoo yoo xam ne yu sharia tere la am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne ña ne ci seen baar di naan sàngar wala yoosu bi waris naa dugg ci seen biir fekk leen fa di leen daawa loolu sharia santaane wu ko jullit bu baax du dugg ci yooye béréb di am lu mu fay def te ña ngay waxal sax faf xellu wuñ nit nag ba dutukum xelam xaw ma us di waxe ak moom am na ay mbooloo yu fi feeñoon yoo xam ne dañ ne nit ñi boo bëggee waxtaan ak ñoom boo leen woo rek duñ ñëw waaye da ngay jëfandikoo loo xam ne ñépp dañuy ñëw su ko defee nga teg fa suuf loola di woote moo tax dañuy jël seeni seeni ndënd wala tama dem ci mbedd di tëgg su ko defee ñi ko dégg ne ah loolu de wadd jóge ci seeni kër fi mu nekk mbedd mi foo taxawoon rek bu tama ji jëngu wala sabar yi bu ne tuuti nga gis nit ñi dañuy mel ne dañ leen a woo ñii ngay wàcce ci étage di daw ñii di jóge fa ñi daw bu ne tuuti ñu daw wër leen su ko defee ñu teg seeni jumtuwaay daal di tàmbali di woote loolu yàlla santaane wu ko du jumtuwaay boo xam ne bu baax la sharia ci boppam dafa tere jëfandikoo loola ñetteel ba nag mooy xaaj boo xam ne sharia santaane wu ko terewu ko da ko bàyyi noonu loolu la ñuy tudde almasaalix almursala mooy mboolem jumtuwaay yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo tey mu wóor ne am na njariñ ci daawa bi manees na ci jaare jot li daawa bi tàmbali ko ci microphone bii nga yor di wax ba àgg ci groupe whatsapp bii nga yor ba àgg ca ya ca des yépp boo ko jëlee jumtuwaay la yoo xam ne mën nga caa jaare jot li woote bi waaye buñ ne la woon tey ana dalilu sharia buy wane ne sañ nañoo jëfandikoo whatsapp mënoo koo indi ndax sharia da koo tere mënoo koo indil ab dalil kooku mooy almasaalixul mursala almasaalixul mursala dafa am juróom juróomi ponk yoo xam ne su dajee rek baax na su ci benn fal yàqoo nag lutu baax ba ci jëkk loolu moo ko wutale ak biddaa ba ca jëkk mooy ci jumtuwaay yi la war a nekk waaye bokkul ci jaamu yàlla yi loolu nag lu mat a xàmmee la wasiila bi ngay jëfandikoo ngir jaamu yàlla bokkul ak jaamu yàlla gi ci boppam ci misaal kii nodd kii nodd la muy wax loola mooy jaamu yàlla gi waaye ndax ab microphone lay jëfandikoo wala day yéeg ca kaw sooroor ba ndax nit ña dégg kàddoom loola mooy moyen bi kon masaalixul mursala ci moyen yi ci lay nekk ñaareel ba amul benn texte bu ñëw di ko digle parce que su ko digle woon kon sharia lay bokk amul texte bu ñëw di ko tere parce que su ko tere woon benn mu nekk lu xaram wala luñ sib wala mu nekk biddaa ñeenteel ba mooy na wóor ne indi na njariñ maanaam am na njariñ luy jariñ ci diine ji waxuñu luy jariñ doomu aadama waaye luy jariñ ci diine ji kenn ku ne xam na ne jumtuwaay bii ñu yor di wax yéen ñëpp ngeen bokk di ko déggee su su su coupé woon rek li may wax ñu sori ña duutu ñu ko dégg kon am na njariñ ci diine ji beneen ba ca des mooy njariñ loolu yi mu indi bum bum nu xañ njariñ lu ko gënoon ci sharia njariñ la ko gënoon ci sharia moo tax bépp jumtuwaay boo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ñu lay laaj ndax dëppoon ak sunna wala dëppoowut ak sunna xoolal juróomi ponk yooyu bu ca dajee rek xamal ne loola lislaam sharia nangu na ko bu ca dajewut xamal ne loola sharia nangu moo tax ñiy laaj kurus ndax mënees na ko jëfandikoo wala mënees na ko jëfandikoo jël ko nga gaaral ko ci juróom yooyu da nga gis ne yépp validé na ba mu des bu mujj bi mooy njariñ lim indi am na njariñ parce que day compter pour nga bañ a jóom waaye njariñ lim indi bu mu nu xañ leneen njariñ lu ko ëpp doole mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa noo jàngaloon wàññi ci ay waaraam ba noppi wax ne waaraam yi ëllëg dañ lay seedeel kon bi nga wàññee dëgg la kurus gi jariñ na la dara waaye xañ na la sa baaraam yi la naroon a seedeel ëllëg te yonente bi sallallahu alayhi wasallam santaane ko ba noppi doon ko jëfe moom waaye boo xoolee yeneen yi ci des yépp nag dëppoo na ak dañu santaane kon ñetti xaaj yooyu moom la am bépp daal jumtuwaay boo xam ne bu yees la bu am bu ñuy jëfandikoo xamal ne shariatul islam lam jàngale kooku mooy jëfandikoo ko doonut loo xam ne luy wàññi dara la jamono nag toll na ci jamono joo xam ne laaj na góorgóorlu bu baax ci fànn googu ak jëfe ci loo xam ne dana mën a tasaare daawa bi ndax lu mu gën a mën a tasaaroo rek day gën a baax bari aana tey ay nit ñoo xam ne ñu ngi gindiku di jóge ci kéefar di dugg ci lislaam am ñuy jóge ci biddaa di dugg ci sunna am ñuy jóge ci jikko yu baaxul di ñëw ci jikko yu baax am ñuy jóge ci mooy yàlla ñëw ci topp yàlla fekk lépp ay kaddu yuñ déglu yoo xam ne amaana borom sax mosuñu koo gis ci lañ ko jëlee kaddu yooyu dëgg la kay wax day am na ca tuyaaba ña ko jiitu it am nañ ca tuyaaba waaye ki fexe ba jot li ko itam ba mu àgg kooka am na ca tuyaaba te loola day mel ne xaw naa méngoo ak liggéey bii nga xam ne moom ngeen di liggéey suñ doon gàttal daal dañ naan jumtuwaayu daawa su fekkee bëgg nañoo xam ndax dëppoo na ak li sharia bëgg wala dëppoowut ak moom dañuy xool ay tomb ba ci jëkk mooy wërte jooyoo ak li sharia jàngale wërta juyoo ak benn texte moo tax li ñuy tudde ay chanté ci lislaam ak ay way yoo xam ne ay groupe day ñëw ay góor ak i jigéen jaxasoo di way ñu ne lii ay waye lislaam la loolu caaxaan la yoo xam ne sharia du ko nangu am na ñoo xam ne dañ naan loolu suñ ko déggee ci la seeni xol di nooyee ci la ñuy bëggee lislaam ci la ñuy duggee ci diir déedéet ay way rek la ñu bëgg waaye lislaam taw ñaareel ba jumtuwaay bi ci boppam bu doonee bu baax ba àggal la muy jurit na doon lu baax waaye bu baaxee ba noppi jur lu baaxut su boobaa jumtuwaay boobu sharia dootu ko nangu jumtuwaay bi mën naa baax waaye am lu ca laxasu loo xam ne moom it lu baaxut lay doon comme jumtuwaay boo xam ne dafa dafa dafa lënkaloog loo xam ne day màndargaal diine ju dul diine lislaam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci njëlbeenu julli dañoo njëkk jëfandikoo ak tuxra boo xam ne ca lañ doon woote mi al buuq ñi ci woote julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen bàyyi leen ko ndax dafa dëppoog li yahood yi di wootee ñu bàyyi ko jël benn cloche muy naaquus biñ ko jëfandikoo ñaari fan mu ne bàyyi leen ko ndax dafa dëppoo ak li nga xam ne moom la nasraan yi di jëfandikoo loolu mu ngi ci saxiixu muslim ñu bàyyi ko nekkoon saa bu waxtu julli jotee rek nañ taal sawara bi suñ séenee mu tàkk ñu xam ne waxtu ba jot na biñ ko jëfandikoo mu ne leen bàyyi leen ko ndax loolu ñi ñuy wax almajuus moom la ñuy jëfandikoo kon moyen bi ci jëmmi boppam faaw ñu segg ko ba mu wóor ne lii juyowut ak shariatul islaam mandargaalut diine keneen moo tax it mbokk yi nag suñuy jàllale yenn kàddu yi mu doon ay conférence wala ay waxtaan wala ay xutba léeg-léeg nga dégg yu ca jaxasoo ca gannaaw loo xam ne boo yeexee day xaw a muuraale baat bi mel ne ay way bu dul way it misik lay nuru maanaam luy màndargaal misik boo xam ne xam naa lañ ci jublu mooy mu doon luy daw yaram wala muy luy def nangam waaye loola lu mat a wattandiku la ndax kat mën naa xëcc nit ki ba yóbbu ko ci tàbbal ko ci loo xam ne du shariatul islaam nanguwut la tomb bi ñu joon sànq bi ñuy wax ci wasail al masail al mursala dañuy sàrt itam ne jumtuwaay bi ngay jëfandikoo bum indi luy yàq loo xam ne day tolloo ak lam doon njariñ wala sax yàq ga far ëpp njariñ la ndax dañuy wax ne addararu yuzaal yuzaalu bi mislihi te it darul mafasidi awla min jalbil masaalix bëgg a indi lu baax ba faf yàq la nga doon bëgg a def lu mel noonu daa mat a wattandiku ci jumtuwaay yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo loolu moo tax ci mujjug waxtaan wi danaa dénk sama bopp di dénk mbokk yi nga xam ne dañuy góorgóorlu ci bunt bii ngeen di góorgóorlu ñu bàyyi xel yi may bëgg a tudd ba ci jëkk mooy ñu sellal yéene yi ci jëf yi na yàlla rekk tax na jot li risaalatul islaam kese tax fas yéene daal engagement bi ñu jël mooy fu lislaam àggul woon dana fa àgg fu sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àggul woon danaa fexe ba mu àgg fa loolu yi yitte la yoo xam ne ku jël engagement boobu yi yaa ngi ci liggéey bu rëy ci biir toolub lislaam te sunu borom tabaraka wa taala mën na laa defal tawfiq ñaareel ba mooy an yanshuru lxaqa kaamilan kama huwa bila ziyadatin wala nuqsaan lépp loo xam ne jot nga ko mu doon dëgg boo koy jottali jottali ko mu mat sëkk dëgg la waxtaan yu gudd yi léeg-léeg bu ko nit ko bàyyee mu guddul ñu bari mën nañ koo bañ a déglu waaye nag daggiin yi nag léeg-léeg mu indi njaaxum waxtaan wuñ dagg fekk boroom ci leneen la doon wax nga dagg ko mu dikk tolloog benn xew-xew nit ñi dégg ko ni ci xew-xew bii lay wax te fekk ku déglu woon la muy wax da nga xam ne kuy wax di généraliser la loolu léeg-léeg mu indi luy nuru fitna te fekk du boroom wax ji moo indi fitna waaye ka doon joxe dëgg gi te joxewut lépp moo ko indi moo tax booy tasaare dëgg tasaare lépp booy tasaare waxi jàmbur it na nga tasaare lépp bul dagg ca mujj ga bul dagg ca njàlbeen ga bul dagg ca digg ba lu dul nag su fekkee daa doon loo xam ne suñ ko daggee dana yomba déglu lool te it du yàq dara loola moom lu mel noonu wàññiwul dara soo mënee junjaale nag ci ne des na leneen wala lu noog loola day daal di doon lu baax ñetteelu ndénkaane bi mooy neen muy caaxaan ak tappale yeeg réeral gi nit ñeeg lëndamal géeg yooyu yëpp mu des ko war a xeex waaye nañ koy xeex nag ak dalil dalilu sharia boo xam ne bu leer nàññi la te jaare ko ci ay yoon yoo xam ne yoon yu shariatul islaam nangu la ñeenteel ba mooy wattandikoo xëccoo ci biir toolub lislaam bi lislaam dafa nekk tool bu yaatu boo xam ne kenn ku bëgg a bay ku nekk mën ngaa bay ba doyal mën ngaa bay ba sonn dem toog te du tee waar wi des fi kon yow mi dal fii di bay keneen dal fële di bay yéen a bokk tool bu ngeen di liggéey kon fexeel ba góorgóorlu ba sa digganteeg moom rafet lu ci ñaaw rek seytaane mu ngi leen di jekku ci seen biirub liggéey rafetal gi loola da cay bokk juróomeel ba woote yi nañ xam ne li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale mooy woote day tàmbalee ci wéral pas-pas pas-pas yi doomu aadama yi nañ ko wéral ay jikko mënee su caa tàmbalee defar ko jikko mënee su koo defar te pas-pas yàqu yàlla xam na ne junni at bu ko nit ñi toogoon ne dañuy defar jikko yi di ca liggéey guddi ak bëccëg ba noppi bàyyi nit ñi guddi ak bëccëg ñu nekk ci shirk jikko yooyu duñ mas a baax lu tax mooy la ko lal baaxul kon pas-pas yi ñoom lañ war a wéral ba nit ñi xam diine lislaam ne lii la yàlla moom lii la yonent bi moom doomu aadama yi ci des lii lañ moom lii mooy jikko yu rafet su ko defee ki pas-pasu lislaam nekk ci xolam ak sunna day daal di yomb lool ay cëram jàpp ci jikko yu rafet waaye kenn mënta defar ay jikko te defaroo pas-pas kon liggéey bi lu ci ëpp na ngeen ko jox pas-pas loolu mooy juróomeelu ndénkaane bi juróom-benneel bi mooy woote bi na tegu ci sunna ak li sharia jàngale ci ay dalilam maanaam na na dëppoo ak xam-xam na nekk wooteb xam-xam ndax dafa am wooteb taxaw rek lislaam baax na sunna baax na kilifa lislaam yi baax na ok loolu lépp dëgg la waaye nit ki nag moom dafa soxla lii nga wax ne baax na mooy lan jàngal ko diine ba mu xam lu mu doon nu lan lay fas nan lay toppe sunna naka lay jullee naka lay woore naka lay génnee asakaam naka lay jëflante julli ji li baaxul ñu détaayal ko ba mu xam ne dafa baaxul waaye rek dajale mbooloo ba noppi ne leen na ngeen na ngeen jàpp ci baax te wattandi ko lu bon lu bon loolu yi doo wax lu mu doon loola dafa war a leer ndax nit ñi xam ko ba mën koo wattandiku lu baaxit ñi mën koo xam ndax ñu mën koo jëfe juróom-ñaareel bi mooy kenn ku nekk fa nga nekk nga jéem a góor-góorlu bay seqi ab jéego ci bennale sàppey ahlu sunna wal jamaa ñi nga xam ne ñoom la yàlla baaxe ñu jàpp ci alquran ak sunna sab woote bis bu set na am luy seqi jéego jëm ci bennale leen te bañ a am luy seqi ab jéego jëmale leen ci lu leen di tàqale ndax seen doole kat ci bennoo la nekk waaye seenu néew doole ci seenu tàqalikoo ci la nekk yii mooy yoo xam ne su fekkee ne daawa bi xam nañ ko bu wér a wér te jàpp ci te xam ne daawa ci boppam jëmmi daawa taxasus ci ak mën koo def laaj na yu baree baree bari laaj na ak tàggatu goo xam ne nit ki du ko bàyyi fu mu toll fu nekk day continuer di am ay séminaire ñu koy tàggat ci daawa muy xam nu mu koy defee saa bu ko bàyyee rek mën naa tàbbi ci am lëj te du ko yëg kon faw ñuy jàppalante ci lu mel noonu suñ demee ba mu yàgg ñu taxawal benn séminaire boo xam ne wootekat yi ci boppam lañ koy defal su ko defee ñu xam nan la ñuy wootee xam lan lañ war a def lan lañ war a bàyyi su ko defee ñuy jottali moom la wootekat yi di wax rek la ñuy jottali ñoom yéen moom ay jottalikat ngeen woote bi nga xam ne moom la nit ñi di woote su ko defee ñay woote nag seen responsabilité day dellu ci lii ñuy woote ñoom lu mu doon ak lii ñu wax bañ koy jottali lu mu doon ndax luy defar la ndax luy boole waa sunna la ndax lu leen di tàqale la ndax luy boole mbooloo mi la ndax lu leen di tàqale la lu leen di néewal doole la wala lu leen di jox doole foofa responsabilité kay woote moo fa ëpp donte kay jottali it nag am na ca part de responsabilité asalullah alkarim rab alarsh alazim an yansura sunnata wa ahlaha wa an yaktuba lana wa lakum altawfiq walsadaat fi aqwalina wa amalina وأن تكون خالصة لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
yàlla yàlla nangu ñaan ñu ngi sant Cheikh di ko daan borom subhanahu wa taala mu sàmm ko aar ko guddal fanam te barkeel ko ñu yàgg di taataan xam-xamam mbokk yi jotaay yu mel ni lu am solo la am na ci ñoo xam ne amaana lii ab njëlbeen la ak tàmbali la ci li nga xamante ne moom mooy seeni woote waaye am na ñoo xam ne amaana dañ doon nafar tey nekk tomb bu am solo te xam-xam nag nii la rawatina tomb yu mel nii ndax comme ni ko Cheikh bi waxee ñu ngi góorgóorlu ñu xëy ci sunna waaye xam ngeen ne sunna dafa ñu màgg lool te ñu aajowoo tasaare aajowoo ñu ko aajowoo tasaare nag soxla nañ ay mbir ay jumtuwaay soxla nañ ku ñu teete soxla nañ ku ñu jox ay orientation kon jotaay yu mel nii buñ ko di fàtte di toog ci kanamu borom xam-xam yi saa su nekk lu ñuy fàtte luñ doon yi nga xamante ne ci luñu war a jaar kon ñu ngi dellu di sant mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk sa bopp ba tey ñu tasa fi ñu ne fa toll bu am solo bi li ci toppoon nag mooy question yi fi ñëwagum nag bëriwul man dinaa profité balaa may jàll yeneen question yi posé cheikh bi professeur bu ñu wax benn laaj lu lu mu doon wax ci li nga xamante ne moom mooy moyen yi bu ñu doon tudd moyen yi am ñu tudd yoo xam ne nee na baaxut nañ ko moytu lu mel ni woy yeeg ak yu mel noonu am na yeneen moyen yu ci nekk yoo xam ne am na ñu koy jëfandikoo yàgg na sax amaa lay wàññeeku na mooy nit de sketch wala théâtre ndax loolu ci moyen yi ñu war a jëfandikoo ci daaw la ko te xam ne ñi nga xamante ne ñoo koy jëfandikoo yenn saa am na ay yax ci alxuraan ak ci sunna ñuy takkaloo bokk na ci misaal rek ci li ñuy takkaloo mooy ñaari doomu ñi aadama li nga xamante ne jote woon nañ ko kenn ki rey keneen ki ba borom subhaanahu wa taala yéen ni ak mala ñoo war ko nii suuleen ne mu suul ne loolu xaw naa ne loolu ak tayaaram kon mën nañ kaa jëfandikoo ndax mi mel noonu mën nañ kaa jëfandikoo ci daw ak xew la moom
barakallahu fiikum alhamdulilah dinaa ci boole leneen yenn saa ñu mel ni ñun ñi jàng tubaab yàlla mën na laa may nga mën bind dégg français loolu mën bind war a mën a bind ñu tuddee ay roman xanaa ñu ma bëri ci xam nañ roman te roman boobu li mu ciy jublu mooy jàngale islam waaye jamono ñu ngi ciy ñu ngi koy bind mu ngi niroog théâtre yi yaa ngi bind bind ci ay yeneen kër yoo xam ne ak yi jëf yoo xam ne yow dañ kaa xalaat rek bind ko ndax yooyu yëpp mën naa doon ci gaaw
alhamdulilah jëmmi théâtre ak ay kecc jëfandikoo ko ci daawa dëgg la waroom xam-xam yi tey am nañ ci ak juyoo am nañu ko tere mutlaqan wax ne loolu daganut am ñoo xam ne dañ ne dagan na di ko jëfandikoo sax ci seeni moyen waaye nag nun day liñ tànn mooy li ne ci diggante bi mooy su fekkee ne am na lu ñu segg ba lu yàlla di tere nekku ca akub yonentam su boobaa loola dara du ca nekk du wàññi dara su fekkee am na njariñ day daal di dugg rek ci liñ doon wax sànq ci almasalihul mursala su fekkee ne luy lor daaw bi nekku ca wala lu juyoog lu yàlla wax akub yonentam su boobaa film boobu yi mënees na ko seetaan waaye nag néew na de wala nga ne amut am nay jamono daanañ liggéey ak ay mbokk yoo xam ne ab association bu mag lañ ci réewi arab yi lañ nekk dañoo ubbi woon programme bu ne dañoo bëgg a génne ay film yoo xam ne dafay dëppoo ak sharia ñu ne nañ xool yi fi jot a nekk ban moo ci bu baax dëgg dëgg dëgg film yooyu nga xam ne dañ ci wane njëlbeenug lislaam wala ñu jël benn borom xam-xam ci xam-xami lislaam yu mag yi ak maam Malik Abu Hanifa wala benn yonent ci yonent yàlla yi pour wane ak dundam ngir nit ñi mën koo roy ñu jël film yooyu nga xam ne mooy yi fi nekkoon jox ko ab commission bu koy jàngat ba xam lu dëppoog lislaam am na ci am ndéet lu juyoog lislaam am na ci am ndéet loolu yàlla dogal nu bokk ci ñu doon gëstu lu mel noonu waaye day amul benn benn bon gis boo xam ne gis ñu ci ay njaaxum yépp ami njaaxum ba ci gënoon a baax ñu yaakaaroon ne bu ci tane la muy ar risala nga xam ne bu siiw ñu def ko ci français ak arabe ak lu nekk ndekete moom chi ay ñoo ko def film bi wane na jàmbaaru lislaam ak jàmbaari lislaam yu jëkk yi ba mu jeex wanewu ci rolu Abu Bakar ak Omar radiallahu taala anhuma lislaam daal ci Ali ibn Abi Talib ak ci Hamza ibn Abi Talib ci la yam beneen ñëw boo xam ne ci imam Malik la doon wane am na fu mu toogee kiñ ne mooy imam Malik donga yi wër ko muy jàngale baaraam bi jaaroob or a ci nekk parce que ñi koy filmer ay doomu aadama lañ yoo xam ne ñoom ñu ci bari sax ay kàccoor lañ waaye bu waxtu lañ war a def jotee rek dañ leen di wutal ay masque ñu def seenub sikkim sol seen yére yoo xam ne day nuroo yére mag ñu jëkk ña daal di dikk toog di jiima dund dundub ñooña waaye fekk lañ baaxoo woon di ko dund am na ci yoo xam ne dañ koy fàtte jaaroob or boobu ca la bokk këñ ne mooy imam Malik mu toog benn bés ci benn xalqa di jàngale jaaroob or nekk ci loxoom benn bis mu ñëw mbooloo mi toog mu dikk nuyoowut dafa agsi rek ñëw toog loolu imam Malik daaw ko def beneen bi wane nañ ko mu sol ay yére yoo xam ne day watu loolu daaw ko def beneen bi wane nañ wane nañ ko muy julli langal ay loxoom loolu daaw ko def ñu ne boobu film baaxul nañ ko dégagé teg ko fële noonu lañ ko toppee ba mu jeex gisee sut benn benn boo xam ne def nañ ko teg ci histoire boo xam ne bu wér la am na ci boo xam ne dañoo wane waraqatum na nawfal mi nga xam ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax yu wàccee ci moom ci moom la ko xadija indi ba mu wax wax joojee mu wax ba ne ak a neexoon ma fekkee bis bu ko nitam ñiy génne ba ma taxaw ci ab taxawaay ci histoire waraqa mbiram foofa la yem waaye film bi dem nañ ba yonent bi gàddaay ba ubbi si màkka waraqatu na nawfal feeñaat ci biir film bi ci koo xam ne faatu woon na bu yàgg biñ daataan génne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala kulli xaal loolu moom segg ko ba mu tegu ci siraatul mustaqim ba mucc loolu mooy wax ji suñ ko mënee am naa nag yi ñuy tegtaloo ci li ñëw ci alquran wala lu mel noonu loolu moom ay misaali sunu borom tabaraka wa taala yom def la yooyu moom am xel munta xalaat wala muy gént naan yàlla mën naa def loo xam ne day juyoo shariatul islam waaye nekkul nag tashri boo xam ne dañuy wax ne day dagan ci anam goo xam ne loola neex def mën naa nekk cosaan ci ne lépp loo xam ne mucc na ci lu yàlla tere mënees na ko jëfandikoo ka misaal parce que misaal rek lay doon ngir soññ nit ñi ci mën a jëfe lu mel noonu ala kulli xaal aajo ji jàpp naa ne lu ci bare bari demewul noona lu tax mooy jamono yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dund ak i saxaabaam lislaam dëgg lañ doon dund kon soxlawuñu woon ku leen di jox misaal ci kuy dund lislaam ndax ñu mën koo roy suñ jonni tey leen soxla mooy ay nit ñoo xam ne dañu dund lislaam jooju au lieu ñu doon ñoo xam ne dañ ñuy théâtral ñu doon ñoo xam dañ leen di gis ñu koy dund ñoom seen jëm bopp su ko defee dund googu ñu koy dund noonu dañ koy roy duñ ci sonn suñu naree jaaxal siirab ñu baax ñaa ngi fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la tàmbalee ci siiraam ñëw ci siira saxaaba yi jàkk yi ak jumtuwaay yu xarale yi ñuy jottalee woote bi ñuy jot jottali ci seen dund nit ñi dégg ko mën koo roy loolu moo ëpp efficacité fuuf gën a dëppoog sharia fuuf ay théâtre yoo xam ne dañ koy def ngir bëgg cee wane lislaam wala bëgg cee wane jàmbaari lislaam bi nga mujjee woon nga bind waaw bind itam moom day delluwaat ci loo xam ne aada la ndax lépp lépp askan yépp dañ koo am li mag ñi daan jëfandikoo ci lépp wàllu yar la am na yoo xam ne buñ ko dee nettali xale yi ci diggante ay bukki ki ay gaynde ki yëfut yu mel noonu am na lu muy jur ci ñoom yoo xam ne léeg-léeg ay jikko yu rafet lay doon léeg-léeg mu nekk ak njàmbaar léeg maqaasid yooyu la amoon loolu lañ ci doon jublu su fekkee ne nit ka la muy la muy bind day dugg ci cadre boobu waaye fekk na li ko tax a jóg dëgg dëgg mooy wàllu yar te doonut wax lu amut loo xam ne ku ko gis ku nekk da ngay xam ne kii li muy wax day jublu ne am na te fekk amut waaye su fekkee da ko ràbbee ci anam goo xam ne ki koy jàng sax xam na ne lii lu amut la waaye da ko tërale na xam ne pour nit jariñu ci la su boobaa loola moom dara mën na caa bañ a nekk lu dul su fekkee am na ci lu jooyoo ak shariatul islam
loolu moo doon xelam seetal kii dafa ne imam la daal la dafa am benn imam boo xam ne dafa yore jàkkaam boo mu jàppalante ak moom ci yenn saa muy jiite yenn saa muy jiite jullit suba te xam na ne bi ñu tuddee wóorootu suba yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi woon na ko te jàkk jooju moom dañuy saxal lu mel noonu nee na ndax dina yàlla ci moom yenn saa mu xunoot yenn saa mu bàyyi ngir ci daawam boobu
konoot day madhabu imam malik bi nga xam ne ñoom ñoo koy faral di def ci julli suba ci jamono yu ne boolewuñ ko sax ci sunnay julli dañ ne rekk luñ sopp la nga xam ne ki ko bàyyi sax su jóot waru ko foofu la toll ci ngir mi ànd ak ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom daawu ko defe noonu moom amul woon xunóot yoo xam ne dañ naan saa bu jullee suba xunóot mu des nag lu mel noonu te du loolu rek waaye yu bari la julli ba noppi tàllal loxo yi di ñaan ak joxe ay dog ak yëfi fan yooyu yëpp ci cadre boobu lay dugg mu des yooyu fan la ñuy war a mën a jaar ba soppi ko ba mbir mi tegu ci sunna la ci jiitu mooy nañuy jàngale ci jàkk yi nañ fexe ba dars am ci jàkk yi ñuy jàngal nit ñi lan mooy sunna ak lu dul sunna nan la ñuy jullee ñu jàngal ko nit ñi ba mu dugg ci seen bopp su ko defee bis bu nit ki jullee ñu gis ne defut lii danañ xam ne ah lii kat noonu leen déggoon ci darsu mooy lii moom fii rek la toll woon ndekete bokkul woon ci sunna su boobaa du leen bett waaye jekki-jekki am luñ miinoon di ko jëfe te kenn waxu leen dara ba mu yàgg ñu jekki-jekki am ku ko jëfewut kooku faaw mu jaaxal leen faaw mën naa indi sax nag coow léeg-léeg su ko defee xamal gi door ngay jëfe muy li gën suñ la bëggee tabb imaam nee leen man kat bala maa dugg ci loolu am na waxtaan woo xam ne bëgg naa ko waxtaan ak mbooloo mi waa jàkka ji su ñëpp dajaloo di la déglu nga wax leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am nu mu doon jullee ba noppi daf ne woon sallu kama raaytumuni usalli jullee leen ni may jullee loolu moo tax su fekkee ne da ngeen a bëgg ma doon seen imaam fa su ma yéenee juyoog li yonent bi jàngale woon su fekkee loola nag jafe na ci yéen sooy bo rek ngeen seet keneen man ma doon maamoom di julli ci gannaaw kooka waaye nag su ma jiitee day nàngam miinees na ko ci jàkka ji waaye loolu du ma ko def ndax nàngam ak nàngam ak nàngam nàngam it fa su ma ko yéene def waaye li ko waral mooy nàngam ak nàngam wax leen lu tax su ko defee loolu leer nañ ci bopp yi doo ñëw rek di jëfe ne ci yàlla nit ñuy xuloo wala ñuy werante nga bàyyi leen noonu xam-xam bi dafa war a am dafa war a jiitu waaw
ñaari laaj yi nii kenn ci dafay laaj ne ndax yàlla na boole mu wootekat yi ñu si seeni jamono ñuy wooteeloo benn méthode wala ku nekk rek fi nga nekk mun ngaa dem méthode bi nga xamante ne mën nga kaa woote nga daje ak sa sa morom ñaareel bi ne est-ce que dagan na ci jullit bi ci situation bu nekk ci yoon bu nekk ci mbedd yooyu yëpp ñu ciy def daawam wala dañu koy tënk.
laaj boobu wala ñaari laaj yooyu yépp day dellu ci tàggatu tàggatu ki ñuy tàggat ci daawa danañu ko xamal kañ la war a woote ak nan la war a woote ak fan la war a woote ak kan la war a woote loolu mooy ponk yi séq daawa bi kañ ak nan ak fan ak kan ñeent yooyu su leeree ci boppam du jaxase am na béréb boo xam ne fa lañu war a woote am na béréb boo xam ne foofa du place woote am na noo xam ne kenn waru naa woote am noo xam ne nii lañ war a woote am koo xam ne nii lañ ko war a woo am keneen koo xam ne nee lañ ko war a woo loolu nag dafa doon ay mbir yoo xam ne lu lu xóot la ci ci méthode daawa boo xam ne ñii jàng ñii jàng daawa ñi koy jàngale sooy boo nga ne tomb bii mu laaj ci la ñuy gën a yàgg boo ko génne woon ci méthode daawa daanaka dara du ca des njuum te lu am ci daawa it juuyoog lenn ci yii mu laaj nii moo ko waral am na fu mu war a waxee te waxu fa wala waxee na foo xam ne foofu waru ko woon a wax wala am na ku mu war a waxal waxee ak moom noo xam ne warul woon a waxee ak moom moom dëgg la war naa wax ak moom waaye warta waxee ak moom nii am koo xam ne daa warta wax ak moom sax faf daa war dem seeti keneen ku ñëw wax ak moom yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dañ koy jàngale di ko xam ci biir daawa bi doonut loo xam ne lu yomb la doon loo xam ne it fatwa mën na ko daal di tontu rek mu daal di sotti ñi xam ne nii la waaye xamal ne daal daawa ci boppam dafa am place am ay jëmm am jamono juñ koy defee amit aw melokaan muy nuñ koy defee yooyu yëpp bu ci manqué rek am lëj mën na caa tànn loolu nag buñ koy wax mooy spécialiste yi nga xam dañoo doon ay wootekat ñoom ñoo ko war a jàng ba xam ko waaye bu dee woote bi nga xam ne moo war ñëpp ni ma ko doon waxee moom léegi kooka moom jërul ngay sonn ci yooyu boo gisee lu bon xam ne lii baaxut nga ne leen ah lii kat moom baaxut gis nga ko muy dox def loo xam ne du noona nga woo ko en tant que mbokkum jullit ni ko lii moom jaadul loolu moom kenn ku ne mën nga ci xëy di ci gont te doo yàq dara am maa nag jékki-jékki génn ci mbedd yi itam loolu ci façon yi ci la bokk su fekkee laaj na ko te nekkul lu tumuranke ci nit ña am na ñoo xam ne duñ dem ci jàkka yi wuy ji ba mën a déglu xutba wala ñu mën a déglu dara waaye fañ nekk di liggéey fa lañ ko mën a dégloo muy ca marché ba wala ci mel noonu ku mën a yor sa haut-parleur gàddu ko ñëw taxaw ca marché ba di waaraate su boobaa it ay nit taxaw di la déglu di jariñu ca loola loola itam dara nekku ca su fekkee fa nga nekk loola kenn terewu ko fa waaye am na réew yoo xam ne dañ ko fay tere naam.
asalaamaaleykum wa rahmatullah bismilaahi wa rahmatullah.
laaj bi ñuy laaj mooy des fois dañuy faral di changé yenn méthode méthode woote ñu gisoon benn méthode boo xamante ni ci réew yi ci réew yi nekk ci bitim réew ñoo koy faral di def mooy benn chrétien wala benn ahlul kitaab moom mooy laajte lenn ci lu ko jaaxal ci lislaam masalan mu laajte lan moo tax lislaam daganalul ñun ñu ñoom ñu takk suñuy jigéen te ñun ñu mën a takk seen jigéen léegi nag am benn jullit boo xamante ni day jël laaj boobu noonu tontu ko jël laaj boobu comme day boole ñaari vidéo yi vidéo laaj bi ak vidéo tontu bi ñu koy tontu léegi ndax méthode boobu noonu mën nañ ko liggéeyee daal ndax dafa nekkoon suñu xel beneen bi. moom mooy waaw maanaam foofu xaqiiqa lu am la loo xam ne ñu ngi leen koy laaj ndax yéen ñu ngi leen koy laaj wala yéen a ko imaginer la mais mun nañu ko laaj kon nañu ko anticiper.
ñun ñoo ko bëgg a def mu nekk méthode boo xamante ni xëy na ñi nga xamante ni dañoo nekk ay ahlul kitaab nga xamante ni léeg-léeg day am comme chaîne boobu ñu doon suivre benn chaîne la boo xamante ni day faral di def loolu ahlul kitaab bi c'est li nga xamante ni daf leen jaaxal ci lislaam loolu la ñuy laaj bu ñu ko laajee après bi nekk ci lislaam xam tontu boobu noonu mu tontu leen ko léegi nag ñu bëggoon jël méthode boobu noonu di ko faral di def pour mu nekk loo xamante ni day jariñ dara ndax méthode boobu noonu lu lislaam la ko def.
waaw ala kulli xaal méthode bii nga wax day dugg ci méthode question réponse maanaam laaj ak tontu ci lay dugg léegi nag mën naa doon loo xam ne directement dafa doon comme nii ñuy laaje nii ak nii ñuy tontoo nii ak programme yi fatawa yi am lu mel noonu luñ xam la waaye lu mel ne loolu yi nga wax dëgg la lu jamtalu la lu mën a nekk la ndax lu baree bari danañ di laaj laaj yu mel noonu kuy topp lu mel ne conférence yi Zakir Naik da nga gis lënt yu bare bare bari ñi di ko ko laaj mu di ca tontu xëy na laaj yu mel noonu ku jëloon yu mel noonu wala yenn site yi nga xam ne dafa jëm ci loolu di ca tànn ay laaj di ko laaj ay boroomi xam-xam yoo xam ne fii lañ nekk nga xam ne kii laaj yow la kii tontu itam fii la nekk loolu ci lay ëpp njariñ ci jël laajub kële ak laajub ak tontul kii boole ko monte ko léeg-léeg sax mu doon ci weneen làkk gis naa ñu koy def su ko defee bu ñu indee laaj bi fii indi tontu bi fii dugal ko ci beneenub site bu kooka dee làkk anglais kii di ko tontu ang- tontu anglais ñuy bind ci suuf weneen làkk moo xam français la wala arabe la ala kulli xaal ci liy jot li ci la bokk waaye bu dee ci askan yu mel ni suñu askan yi moom wax ko ci làkk yi ñu dégg mooy doon li gën a direct te ci li ñuy gën a mën a jariñoo itam su ko defee jox ko keneen mu laaj ko boroom xam-xam bi tontu ko loola mooy gën a mooy gën a jaadu.
barakallahu fiikum ñaareelu laaj bi mooy dañoo gis ay nit ñoo xamante ni ñoom dañuy woote ci alxuraan ak sunna waaye méthode bi nga xamante ne dañ koy defee dafa tumuraanke fii mooy dañuy dem ci lieu lieu public yi léeg-léeg sax ay ahlu kitaab ñoom ñoo fay dëkk léegi bu ñu fa dëkkee ñu woo leen ne leen kaay leen ñu waxtaan ci bible bi wala ci quran lépp lu leen ci jaaxal ñu waxtaan si ñoom loolu moom mooy nekk seen méthode léegi nag am ñoo xamante ni ñu ngi doon wax naan méthode boobu baax na ñii tamit wax ne méthode boobu nekkul loo xamante ni yéen ci saa daf ko jàngale ñu bëggoon ci ay leeral barakallahu fikum
ala kulli xaal mën ni su ta wax ne baaxul ndax ki nga xam ne dafa ñëw gaaral boppam ne laaj leen ma ci alquran wala laaj leen ma ci seenu téere kooku mi ngi woote débat na fexe rek ba dëppoo maayir yi nga xam ne moom la lislaam joxe muy ni lislaam santaanee ne na ngeen waxee nii ahlul kitaab wala tujaadilu ahlal kitaabi illa billati hi ahsan bu leen weranteeg ahlul kitaab wala ngeen di débattre lu dul ci nam gën a rafete kii def loolu war naa jàng defin méthode bu rafet ci waxin ak tontu war naa préparer boppam ba kenn du ko mën a merloo waaye avant loolu lépp war naa nekk boroom xam-xam bu mag parce que fiitu ñëw di wax ne laaj leen ma ci alxuraan mën nañ koo tegal ay lënt yoo xam ne ba watul bala koo lijjanti dana dem jàngiwaat loolu nag lu ma ta bàyyi xel la maanaam fiitu laaj leen ma ci alxuraan ma tontu leen moom loolu ko cay àgg ah jàpp naa ne war naa xool boppam bu baax a baax
barakallahu fiikum jazakumullahu xayran waxtu bi ñu war a yëg di jëlaat bi cinq minutes moom moo ci des am na yeneen laaj yu nekk duñ ko mën a gaaral Cheikh léegi waaye na ngeen xam ne dinañ ko jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy posé ay question ci émission yi muy am fataawa donc dina àgg foofu na ngeen ko suivre kon li des ci quatre minutes bi dañ koy bàyyi du weesu nasaa yi ñu doon def sànq fekkante ne am na yeneen yoo xam ne mën mën na ko incha allah baax na booram ñu dégg ñu dégg doo ko yëpp ci détail bi buñ ko yëpp yëpp nañ bàyyi bu génn ba bàyyi doo ko génn incha allah barakallahu
xanaa rek di woowaat mbokk yi bu baax a baax di leen dénk di dénk suñu bopp ñu gën a jublu ci xam-xam ak jàng ko léegi day kenn amatutu lay ci ñàkk jàng xam-xam te jàng xam-xam tëkkul ci ne faaw nga jël téereb arab dem di jàngi làkku arab ba man ko ba noppi door a wëlbatiku ñu firil la ko nga toog ay at yu yàgg a yàgg door a mën a jàng du loolu rekk mooy xam-xam dëgg la loolu xam-xam la ba tey it am na ñoo xam ne noonu la ñuy jànge te loolu mooy jàngin bi cosaan it ci jàng waaye nit ñu xam ne loolu doo nga yëmatul ci jàng ay nit a ngi toog fa ñu toog di jëfandikoo jumtuwaay yu xarala yii di jàng njàng moo xam ne la ñuy romb ñi ngi koy takk takkiin woo xam ne ci wàllu xam ak di ko jëfee ci anam goo xam ne bu yàggee ñu baree bari ñuy liñ lañu ci biir téere yi rawatuñ leen te yëguñu ko loola nag aw lay la woo xam ne day daal tege ci kaw loosu ñépp ne jàng moom léegi yomb na nit ñi dañ daan gàddaay di tukki fu nekk ñu jëm fa ngir bëgg a jàngi loolu ñu daj ko ci ay yoon ndax suñ demul lañ bëgg a jàngi duñ ci mën a jot léegi nag ñu dem ba la nga waroon a jóg génnum réew di ko jàngi lépp jàngi nañ ko ba indi ko boobu nit ñu jàngiwul woon ba indi ko it jumtuwaay yu xarala yi àgg na ci université bu la neex tey ci àdduna mën ngaa toog fii ci sa kër di fa jàng boroom xam-xam bu la neex bu nekk mën nga ko déglu noonu mu amee ci yeneen làkk yi ci ak yeneen réew yi noonu la amee ci suñu làkk yi réew mii boroom xam-xam yi jàngale nañ téere yi jottali nañ tawxid bi jàngale nañ sunna li ci des kay mooy organiser sa waxtu ba fexe ba am waxtu woo wut ci sab liggéey woo xam ne saa bu waxtu woowee jotee da nga arrêté lépp loo doon def dellusiwaat ci déglu benn xutba ba mu jeex nga takk ko fexe ba duutu la raw bu ëllëgee nga déglu conférence bu ëllëgee nga déglu ab bind ci ab téere loolu yi day ku ko saxoo bu yàggee da nga am ab cër ci xam-xamub lislaam bii te itam da nga am loo jëfe yàlla defal la tawfiq it masala moo xamut mu nekk benn borom xam-xam ngi ci sa wet boo xam ne boo ko laajee yàlla mën naa dogal lum la tontu nekk fa kon daal fi mu ne nii aw lay moom amatul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon waat naa ci yàlla mi yor sama bakkan ni mbir mii ma yor fépp fu guddi àgg ak bëccëg dana fa àgg muy lu doy waar luy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi ndax jamono yam koy wax booba xat na lool ci jullit yi xat ci saxaaba yi nekk màkka ñi doon lu yées ñeent fukki nit jullit yi ci àdduna yépp matuñu quarante personnes booba ci daarul arqam xam ne ku génn sax da ngay làqu ndax ragal ñi lor la mu mën a taxaw ne waat naa ci yàlla ni lii ma yor fu guddi àgg ak bëccëg dana fa àgg loolu ku yàlla di wax yi rekk moo ko mën a xam mu ne nag bu boobaa yàlla dana ca teral ña nga xam ne ñooy jóg di ko tasaare waaye yàlla dana toroxal ña nga xam ne ñooy jóg di ji ma taxaw ci kanamam moo tax mu ne bi izzi azizin aw bi dhulli dhalil kon mbir mi tasaaroo na sooy bonne ne suñ jamono tey ji fu lislaam ak gul amul fépp la lislaam àgg te it ñépp a mën a jàng lislaam ca làkk yañ dégg fi mu toll nii kon nag aw lay moom amatul ci kaw suuf la yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ala ak ballagtu ndax jottali naa ñu ne ko waaw jottali nga lam jottali woon tey àgg na fépp kenn amatul aw lay yàlla nu borom bi tabaraka wa taala xiir ci jàng diini ji ba xam ko te di ko jëfee te lépp yàlla ay kese rek tax wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain جزاكم الله خيرا قال لي ما شاء الله kon foofu la ñuy yëkkatee jotaay bi maa ngi bàyyi si ànd ñu génn incha allah bu ko defee mbokk yi ñu ngi wax dañu neexee ñu ci bëri lu bëri aussi ñu yëkkati seen jotaay bi mais bàyyi si ànd boobu génn incha allah asalaamaaleykum